le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,27%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 62 contacts suivis par nos services et cinq cas issus de la transmission communautaire répartis entre Yoff, 1 cas, Diamniadio, 1 cas, Thiès, 1 cas et Touba, 2 cas. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Quatre cas graves sont encore pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann et de Principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1182 cas ont été déclarés positifs depuis le début de l'épidémie au Sénégal. 372 en sont guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 800 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. ma jàngal leen ci wolof communiqué ministère de la santé et de l'action sociale tey ci bésu dibéer 3 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñetti téeméer ak fukki test yi ñu def juróom benn fukk ak ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñaari cas contact mooy cas yi nga xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi ñu am juróomi cas communautaire benn bi ci yoof benn bi ci jamñaajo benn bi ci Thiès ñaar yi ci Touba ñeent ci malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey am nañu ñeenti cas yoo xam ne ñu ngi ci suñu service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal yeneen malade yi des ñu ngi tane ci bësu tey dalee ko ci cas bu njëkk ci senegal wàññi nañu junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari cas ñetti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak ñaari wër nañ ci juróom-ñeent ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu yóbbu ko dëkkam mu des juróom ñetti téeméer ci hôpitaux yi